suñ gërëm di leen sant Matar Diop mii nag sën la sën boo xam ne dinaa jaa jàppale ay jigéenam Matar Diop lekku dara bàyyi ñu Matar Diop jox nañu ay financement dañ daa xëy di tëdd Matar Diop moo jox ay millions ñuy liggéey ñun jigéen Touba barke Serigne Fallou parce que man joxo joxo fa man du ma trisé man lu ma xam rek laa wax Matar Tabaski dañu koy jox màggal dañu koy jox Korité dañu koy jox Matar dañu jox jox ay saako ceeb màggal ku nekk ni suñu njëkkëri dañ donc gis nga comme ni ko Matar Diop waxee ñun les jeunes de Kael ñun l'ensemble des militants de la PR de Kael dañoo réunir wu tey pour accueillir son excellence monsieur Macky Sall président la République du Sénégal à l'occasion de cette journée de l'élevage boo xamante ne journée nationale boo xamante daf ko def pour éleveurs yëpp daf ko def pour tout le Sénégal muy fête boo xamante ne c'est une fête doon loo xamante ne initiative président Macky Sall la te sàmm yëpp askan wi yëpp ñu koy ñu koy rafetlu vraiment macha allah ñu ñëwoon ànd suñ gannaaw suñu mag. suñu responsable honorable Matar Diop ki nga xamante ne depuis toujours ñun ñooy ànd ak moom ci lépp lu ñuy def moom moo ñu ko jàppale vraiment ñu nit koo xamante ne dafa taaw di jàppale son excellence monsieur Macky Sall ci dans le département de Mbacké surtout ci commune bu Touba nga xamante ne lii tey lu fi Mata Macky am tey ginnaaw yàlla Matar Diop moo tax waaw merci donc di wax aussi waa Kayel ñu ni nii ànd ak man vraiment en masse ñoom ñëpp ñëw nañ bootu sama gannaaw ñu ñëw accueillir son la République du Sénégal waaw ñun président rek a ñu ñor bu fekkee day déplacé wu ñu woon ko ne moom lañ àndal kon boog lépp luñ mën muy suñ coono ak suñ doole dara du ko fekkee pour ñu teeru ko ndaxte yàlla dogal na responsabilité bi ñu jox ma nekk mandataire départemental kaar yaa ngi ñëw kaar yi pareegul kon boog tey Macky Sall buy ñëw fii tey journée de l'élevage mu tànn ko région de Diourbel département Mbacké Kayel bu ñëwee nañ ko war a teeru ni ñuy teeroo buur loolu moo tax nelawatuñ yaanatuñ ànd ak ñi nga xam ni ay conseil spécial am ñoom Abdou Ndiaye ñoom Omar Sow ak ñoom Mamadou Liba Bass jóge ba Dakar ak l'ensemble ñëpp ñi nga xam ñoo jóge Touba ak jeunesse yi nga xam ne ñooy ànd ak moom di ko liggéey guddeeg bëccëg loolu moo tax tey yaakaar naa ne yeneen kaar yi bu ñu ñëwee kenn du fi xaj Macky Sall moo ñu ko jaral te dañ koy def dana danañ dem ba mu jeex li ci des dinaa leen jox rendez-vous bi am na benn point conférence de presse mag bu may def pour mën a wax li nga xam moo xew ci réew financement waaw mais tey est-ce li ma la man ay pexe laa am man du ma blanchir du def dara yàlla dogal dama ànd ak ay kilifa mais nag am na ay lijjanti ah je suis un opérateur économique j'ai des relations avec les banques bu ma ñëwee joxe ay caution bu ñu joxe caution ñu finance jigéen ñu liggéey dem fay. léegi système boobu la ñuy liggéeyee nekkul xaalis boo xam ne xaalis état du xaalis dara. dañuy dem jël caution yóbbu ko ci banque bi ñu finance yëpp ñun daal pare nañ képp koo xam ne da nga jàppale président Macky Sall di ànd ak moom lépp luñ mën ak luñ mënul daan ko def surtout ñu yëngut ci wàllum élevage di sant bu baax le ministre de l' sama Samba Ndiobène Ka c'est mon ami moom tamit comme ni wax sama xarit la euh, sama wëllër ñaa ma ñaanal ko bis tamit mu am ci ndam. voilà vous avez réussi le pari de la mobilisation pour soutenir le président ah, Macky Sall. oui comme président Macky Sall. Tout ce qu'on fait pour lui, vraiment, c'est pour lui, c lui rendre la Donc aujourd'hui, s'il est l'hôte du département de Mbaké, euh, il est l'hôte de la région de Djobel, c'est très normal que toute la population sorte, lui, lui un accueil chaleureux. C'est la raison pour laquelle nous avons, nous n'avons pas hésité de casquer les moyens pour que vraiment euh, qu'on qu puisse lui accueillir un accueil chaleureux. Euh, les femmes se sont mobilisées parce qu'ils disent et qu'elles disent que vous les avez toujours soutenus en financement. Est-ce que vous êtes prêts les, ceux qui s'activent dans moi, le je, suis un responsable politique qui ne trompe pas les gens. Moi, un opérateur économique. Les femmes, euh, quand, je vais euh, dans, une banque, euh, je vais discuter avec eux. Je mets une cochon pour qu'ils puissent financer les femmes. Donc, j'ai réussi à peu près à financer après plus de 200 groupements. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les femmes sont sorties massivement pour accueillir le président Macky Sall. Non, je, je suis prêt à le faire pour toute, pour, pour toute la population du département de Mbacké, surtout les éleveurs et les autres femmes opératrices économiques. et non tromper le peuple. Ah, c'est vous qui l'avez dit.